comment le faire te il maîtrise benn mbokk yaakaar vous êtes vous êtes <laughs> entre guillemets bon, vous êtes entre guillemets le, le bras armé du, du parti démocratique sénégalais ils vont déposer leur recours au conseil consul euh, euh, à la cour suprême euh, pour attaqué waat li nga xam ne moom mooy kii comme d'habitude mm. certainement vous allez les accompagner. vous allez les accompagner puisque yéen yéen a leen ah. kii yéen yéen da ngeen di ngarale ah, nañ dem demuñu de na ngeen nañ dem mais bu kële yëngalee ngeen ngeen daw. ànd ak moom lii xam nga xam nga ñun man mi toog fii di wax ak yow tey dans ma position personnelle. voilà je ne soutiendrai pas un tel acte. Okay. d'accord je, voilà Sénégal soxlawutul dellu gi mhm. voilà Michel Michel fi ma.